ay gi neex na mbàkke Cheikh Fallo fam nga jumaa ji xal yoonu mbàkke sengul asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokk yi nga xam ne ñooy bàyyi xel suñu télévision Touba TV ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di rafetlu ànd gi ñu ànd ak ñun waaye ci bis bu sell bi nga xamante ne bii moom lañu ñu jagleel jàmbaari lislaam ji di Cheikh Modou Fadal mi nekkoon ñaareelu xalifa Serigne Touba tey nag seen télévision Touba TV jël ay matuwaay yu mat sëkk ci biir dëkk bu sell bi di Touba ngir lépp loo xamante ne bii war naa mën a tax ñu xam dundalinu bis bi waaye lépp loo xamante ne bii itam war mën a tax eh, ñu xam lii xew tey ci dëkk bu sell bi di Touba ñu mën ko seetaan fépp fu ñu mën a nekk ci àdduna wërngal këpp gannaaw bi ñu feggoo ak suñu naatangoo Serigne Jibril Ndaw ak Serigne Mbacke Mbodj ñuy def ab liggéey bu am solo jëmati na euh, jëm ci li nga xamante ne bii moo soxal màggalu Kazu Rajab atum 2018 euh, ñu gis nag tey jii mbooloo mu takk mu am solo mi nga xamante ne bii gis nañ leen ci biir dëkk bu sell bi di Touba ñu wuy si wooteb euh, Serigne Mountakha Mbacke waaye wuy si wooteb Serigne Abo Mbacke mi nga xamante ne moo nekk ci bopp njabootu Cheikh Amadou Fadal waaye wuy si wooteeb mbooleem njabootu Cheikh Modou Fadal yaakaar naa loolu lu am solo la waaye ay matuwaay yu am solo atum ren seen télévision Touba TV jël ko dolli ko ci yim daan jël ngir lépp loo xamante ne bii xibaar la wala lépp loo xamante ne bii aw dundalin la wuy am tey ci biir dëkk bu sell bi di Touba soxal bis bi ñu jagleel Cheikh Modou faadal ñu mën koo gis fépp fu ñu mën a nekk yaakaar naa loolu lu am solo la atum ren Serigne Jibril Ndaw jërëjëf sëñ Mor joxane assalamu alaykum mbokki téléspectateurs yi seetaan télévision Touba TV sëñ Mor li nak image yi boko gissé rek xamni da fay da fay da fay wax li tubaab nan des images parlantes waye li muy wax moy lan moy li nga xamanteni rek mo taxone Serigne Touba di liggéey moy taxawal diine l'islam moy moy moy moy fexe ba fep ci dëkkam bi moy fep fu ci way mën taxaw mën nek fu sel fo xamanteni ne di nga fa mën taxawal joxe fa waxtu suñu borom bi kon Serigne Touba mi sanc Touba jaamu yalla mo taxone waye tay ji ñu ñëwaat nak ci kazu rajab kazu rajab sëñ fallu gane ci aduna di wër bi nga xamanteni ci la Seydina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam won suñu borom jox ko julli <coughs> lu bari nak ñu koy wax ci fallu waaye dañu war a symboliser taxawaay bi sëñ fàllu taxawee ci wàllu julli ndax jumaa ji tey ji bu fekkee di effort yi nga xamante ni moom la sëñ fàllu sëñ fàllu def amul kenn koo xamante ni def nga ci yuni toll ni mu koy daan waxee moom ci boppam da daan wax naan euh, xeer wu njëkk wi mën wu mujj wi tamit mën koo xamante ni depuis ñu tàmbali jumaa ji ci euh, construction bi teg xeer wu njëkk ba nga ànd kook Cheikh Modou Moustapha ba fi mu ci yem yow it nga jëlaat nekk ca nekk ca ba ba jumaa ji àgg musta am mbub mu baax musta am kër gu baax musta am lépp lu mu mës am def na ko ci jumaa ji kon sëñ fàllu wane na ni nit ñi kat lépp lu ñu am war nañ koo jox suñu borom taxawal diiney lislaam mu nekk ci loolu ba jumaa ji àgg li muy doon doon xalif général ak charge yi nga xamante ne moom la amoon adduna sëpp yaakaar ko président yeegi Senghor ak ñoom ñëpp di daw wut ko loolu lépp ak charge responsabilité euh, xalif général ni mu diisee sëñ fàllu boole ko ak di jiite jumaa ji kon euh, ndax diggante 1963 bi mu àggee ba 1968 lépp sëñ Fall moom mooy jiitu jumaa ji ndax daf ne maa fi mag maa fi raw koo xamante ne nag loolu lépp ci responsabilité nga boole ko wëlbati ko di jiite jumaa ji kon kooku importance julli ak taxawaay bi mu am ci diine l'islam sëñ fàllu démontré nañu ko sëriñ Touba démontré nañu ko kon ñun murit waru ñuy des ginnaaw waru ñuy yokkat rawatina lu jëm ci wàllu diine rawatina taxawal euh, du diine lislaam rawatina nag tey jii sëñ Mor kasu rajab gi yemoog bisub ajjuma mm. euh, ni noonu la jumaa ji feesee mbooloo mi tamit ku mel ni kon dégg nañ woote boobu ndax xam nañu ni lépp loo xamante ni moo ci jiitu mooy li Sëñ Tuubaa waxoon inni ujahidu bi ulumi wa bi tuqaa loolu yaakaar naa ne lépp am na fi Sëñ Fàllu dajale na ko te matale na ko bu dee xam-xam moo fi raw bu dee jub ragal yàlla yi tamit moo moo ci raw sëñ Mor jërëjëf sëñ Jibril ni nga ko waxee muy lu am solo loolu day firndeel rek ne e, kenn ku nekk ci ñoom Serigne Touba la ndax xam nga ne dëkk bu sell bi di Touba bi ko Serigne Touba sancee ba noppi am na lu mu fi nësaroon waaye bind ko itam wax ko ci xasidaam googu di matlabul fawzeyni bokk na ci jumaa ju sell joo xamante ne bii eh, fu nit mën a nekk wala fu ab julit mën a nekk dana ci mën di jaar di dundal li nga xamante ne bii moo di waxtu yu juróomi loolu ni nga ko waxee gannaaw bi ko Cheikh Mamadou Moustapha Al Karim tàmbalee eh, ci bi sëñ bi làqoo ci Zahir eh, Serigne Mouhamadul Fadal Mbacke mii nga xam ne moom la ñuy fàttaliku tey ji moom moo ko matale ba inauguré ko ci atum 1963 mu nekk lu am solo dëkk bi sax Serigne Touba dafa ñaanoon muy dëkku xam-xam dëkku jaamu yàlla topp yàlla ragal yàlla xam nga ne sëñ fallu bi mu matalee jumaa ji ba noppi eh, am na daaray xam-xam ju am solo joo xamante ne bii fii ci jumaa ji muy njàngu majaalis taxawal na ko fi mu nekk lu am solo nga xam ne eh, ci madlaw fawsé nii am na fu Sëriñ la ci biir madlaw fawsé ni waaye dëppoo na itam ak jëfi Cheikh Modou Fadal ci biir dëkk bu sell bi di Touba nga xam ne bu ñu ko doon xool tey niki noonu mën nañ koo topp ci ay fànn yu bëri yoo xamante ne bii gu ci nekk rek Cheikh Modou Fadal def na ci lu fës loo xamante ne day dëppook bëgg-bëggu Serigne Touba waaye dëppoog mbindum Serigne Touba waaye nag wuutu sëriñ Touba ci zaahir ak ci baatin ci njaboot gi eh, ci lépp loo xamante ne bii rek yàlla na ci biir dëkk bu sell bi di Touba wala lépp loo xamante ne bii tamit yàlla na ci yoonu murid ndax li Serigne Touba wax ne amul tànki gannaaw yooyu kanam la am yaakaar naa dafa feeñ ci Serigne Cheikh Modou Fadal bi mu wuutoo Cheikh Modou Moustapha ci atum 1945 li mu yokk ci yoonu murid yaakaar naa bu ñu ko doon waxtaanee tey jii xajul ci benn jataay Euh, ni ko sëriñ Mbacke Mbodj waxee woon xëy na Euh, waxtu yi bariwul lool Serigne Jibril waaye daal li ñu mën a jàpp tey mooy taxawaay bu am solo boo xamante ne bii Touba TV euh, def na ko tey ci dëkk bu sell bii di Touba muy ndigal lu bàyyi ko ci El Hadj Mbacke jaar ci Serigne Cheikh Balla Samb waaye yow mi di suñ directeur programme waaye Serigne Mbacke Mbodj mi nga xam ne lépp loo xamante ne lu jëm ci wàllu technique la rek moom moo koy saytu yaakaar naa tey ku seetaan Touba TV rawatina ñi ñëw tey ci biir dëkk bu sell bi xam nañ ne mention spéciale moo war ci ñoom rawatina ci couverture médiatique bu màggal Cheikh Modou Fadal édition 2018 jërëjëf euh, sëñ Mor kon daal noonu nga ko waxee rek Touba TV déployé ay moyens ngir mën a ñëw couvrir màggalu Kazu Rajab waaye xam nañu ni euh, li ma koy waxee feccum ndiir euh, bu bu neexee ndey jàpp ca wagg ya loolu nag c'est grâce ak suñuy kilifa tàmbalee ko ci Alaaji Mbàkke Fay mi nga xamante ne saa suñu nee tubaa lu ñu jëm moyen lépp lu war mu yëkkati ko def ko ci ànd ak yi tamit ci supervision ak coordination sëñ Cheikh Balla Samb ñi ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal ci barki Cheikh Mahamadul Fadel lepp lu ñu def ci magal gi bu deewone ñu def lu ko gëna mën te suñ borom ñu dund ba mu euh, inaugurer Masalikul jinan bi nga xamanteni ni fierté la ci yoonu murid yépp yépp euh, soxna Awa ndjay dem dafa wax lu am solo dafa wax ni kat ñaar yi kat mom euh, sëñ Touba da ko mbakar fegu alaaju mbàkk yu fay moy juma ji ak Touba TV Touba TV kon yi rek wax deug yalla ñun tamit ñu sant yalla gannaaw dugg nañu ci liggéey bobu liggéeyal tuba, Touba jaaré ko ci télém bi di di di Touba TV kon sëñ Mor daal ñu ngi sant bu baax a baax xam naa duñ def lu dul rek delloo antenne bi euh, waa ci kanam ñoom it ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax rawatina nag ñi nga xam ne ñoom nekk nekk foofu ca Ndakaaru sëñ Babacar Diop sëñ Youssou ak euh, nday Ndiaye mboolem équipe technique bi nga xamante ni ñu ngi nekk foofu waaye ñu nekk fii tamit ay jàmbaar lañ euh, mañaan bi nga xamante ni moom moo naawal naawal drone bi noonu gis yéen image yu am solo yooyu ñoom Moustapha Seck ak ñoom ci kilifteef euh, alaaji Mbàkke Mbodj ñu ngi koy sant bu baax na xam naa ne alaaji la ndax euh, ren moom faaw mu dem euh, mu def defal ñu reportage Madina ndax tamit waaw wajhalu daara xam na ko kal kal kal Madina waaw Touba abat waaw waaye am na fu naan da ngay def sama kër yi ñu mel na Madina waaw kon nag kon sëñ nga gannaaw nag wane nga màkk ji ne fii faaw nga dem ci gu mag nag wane ko incha allahu taala kon ñu ngi sant tey gërëm di leen delloo antenne bi wasalaamualeykum aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu sëñ Mor Joxaane la woon feggoog ndongo li Jibril Ndaw